ñu dem ci la solution mi ngi en face Walfadjri am nañu ndoxum siti ñoo man si tawaat yi ndoxum siti mu lay faj ba nga wér si kàttanu ak sunu borom am nañu hémorroïde ñoo man si tawaat yi am nañu hémorroïde bu lay faj ba nga wér si kàttanu sunu borom fii si solution am nañu estomac fii si solution am nañu estomac bu lay faj ba nga wér si kàttanu ak sunu borom asma asma bu lay faj ba nga wér fii si bitigu solution am na fi. ballottement. ballottement fii si bitigu solution dalay faj ba nga wér si kàttanu yàlla. tànk yu xar. tànk yu xar fii si bitigu solution da ko cay def mu melaat na meloon. kuy saw lal te mënoo ci dara. ci loo yëkk nga daal di dem saw ñëw tëdd xëy ñàngale noonu ñëpp fii si bitigu solution am na fi. raay mu sedd. guy li nga yaakaar ni daa sori bokk ci njëkke ko fii si bitigu solution day sedd guy bu seddutit maanaam bu dee leneen loo xamante ni du métit dana ko liisal dana ko rafetal ko bell ba sa xol di sedd boo ko dee xool foo ko diw karaw guy dagg di ruus dakk na fii si bitigu solution karaw gu liis gu rafet foo xamante ni boo ko génnee xol ña nga bëgg mu sedd ñooy sedd maa ña nga bëggul seen xol sedd bokkuñu si seen xol di sedd yokk waaw bu fekkee lu war a yokk la lu baax lu war a yokk boo ñëwee dana gën a yokk mais bu fekkee li nga yor carrément xam nga ne lii du luy dox wala luñ téye la wax dëgg yàlla jurut ngay ñëw ndax boo ñëwee du yokk li nga xam ne nag mooy bàcc mu leer boo bàccee leerul demal nga faju jiwaat leneen xam ne du ñàkk mën a bàcc fii moom xalaat kulli alin boo jëlee suñu lii defee ko ni ñu la ko waxee fii si bitigu solution si carte yàlla loo romb day leer nañ nañ nañ nañ nañ nañ ni bi jiwu bëccëg d'accord mi ngi noonu sama benn booy bu nekk Touba démb Abdou daa takkub seet bu yàggul hmm. léegi day ñibbiwaat Mali ne hmm. day ñëwaat fan yi dem ca mbàcc ma ca xel ko hmm. ma ne ko ndax ca mbàcc ma takku seet la kay wala da ngay bàccul si mu demul si mbàccum xel kom mbàccum boppam lay nekk. <laughs> waaw kay na bàyyi xel kom ji muy laytoo. ah na bàyyi xel kom ji muy laytoo. voilà te yem si mbàccum boppam. lu mu mbàcc na leer. <laughs> très bien voilà na bàyyi mbàccum xel kom te mbàccum mbàccam. mbàcc mbàcc mbàccam. voilà kon Abdou mi ngi noonu nee woon naa la bu ma xëyee sa dossier bi dinaa ko yul bàyyi Assane Mesre. leer na.